تقرى إلى الله وحده yanaalul maqaama la raja ngir ngeen di jot suñu vidéo nag foo leen toll ci biir réew mi wala bitim réew da ngeen di abonné fii ci Farokh TV ngir mën a jot mbooleem vidéo boo xam ne dinañu ko ngir mën a xam mbooleem loo xam ne dina xew fii ci biir réew mi wala bitim réew aouzu billahi samil alim min sarri seytaani rajim bismillahi rahmani rahim الحمد لله القائل في محكم تنزيله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون والصلاة والسلام على من خال الحلم الخزائن ومفتاء السهال وعلى آله وأصحابه طيبين الطاهرين ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله mbokki téléspectateurs yi ak seen mbokku taalibe Ousmane Diaw moo leen di nuyu si nuyoob lislaam bi ñu yàlla boole mu gën a matale gën a jotale te nga xam ne benn nuyoo du doy walis ko muy asalaamaaleykum wa rahmatullah ginnaaw nuyoo bi nag ñoo fas yéene ñëw àndaata gi yéen seen émission Sirajan Munir bi ngeen baaxoo daan ànd ak ñun mu nekk ñu koy dox sax ajjuma ñi ci ànd ak suñ xarit Mouhamadul Makhtar Diop ci wàllu tont bi seen mbokk taalibe Ousmane jaw ci wàllu laaj yi ci wàllu caméra bi Boubacar Bari tabaarakallaa bu ko defee rek xam naa dañuy jox suñ mbokk Mouhamadul Makhtar mu daldi di nuyoo ñu dugg ak yéen ci émission bi incha allah. waaleykum salaam wa rahmatullahi Seydina Ousmane. gannaaw buñ leen nuyoo ziyaara la ñu ngi jël suñu nuyoo ak suñu ziyaara tabaarakallaahu teg ko ci sa loxo nga joxal ñu ko mboolem téléspectateur ak téléspectatrice yi ci fu site bi di Farokh TV ak fu ñu mën di nekk di leen jégalu ci gëj a euh, déggante bi ak gëj a gisee bi tabaarakallaahu nekkoon ci yeneen xanam ak yeneen i doxin laaw loolu moo taxoon ngeen gëj ñoo gis gëj ñoo dégg waaye jàmm rek la woon kon ziyaare nañ ñëpp ndokkeel ñëpp baalu leen xaq fas yéene àndaat ak ci seen émission bi ngeen di siraajan mu niiraan comme Seydina Ousmane mbir yi dafay dox ci temps te temps bi gudd lool ñu yemale foofu nuyoo bi rek tabaarakallaa bàyyi la nga dugg ci liggéey bi incha allah. macha allah Ahmadul Mokhtar ah tabaarakallaa nuyoo bi gàtt na waaye jotale na comme ni nga ko waxee rek comme dafa tënku si temps <coughs> moo tax rek. waaye a ah, sëñ Mahamadul Maxtaar dafa mel ni tey moom sa taabul ja dafa xaw a soppeeku. Mm-hmm. ah moom tabaarakallaa xanaa tey sa taabul bi moom da am ko la sponsorisé wala da ngay jaay ay garab. waaw waaw fa tabaarakallaahu ni nga ko waxee rek. xam mm-hmm. nga mbir moom. Mm-hmm. am na ñoo xam ne ñu ngi koy suivre bu gisee ne am na njariñ rek. fa tabaarakallaahu dañuy gaaw dugal ci seen loxo. xëy na am na ay mbokk yoo xamante ni nii. gis nañ émission bi ni muy doxee ak njariñ li mu xam. loolu moo tax ñoom ñu ñëw ne dañ koy dañuy dañuy sponsorisé dañuy sponsorisé émission bi. waaye fa tabaarakallaa nekkul ne suñuy garab la mais ñoom. ñoo ko sponsorisé fa la muy garab yi xam solo yi nga xam ne moom ngeen di jàkkaarloo incha allah. macha allah ah waa léegi ndax man nga ñu si euh, may benn par benn rek ñu xam ndax gis naa fi ñetti façon biteel xaw ma ñeent. Hmm. léegi yow bitel bi legi ku bëggoon a xam maanaam jariñal lenn ci bitel bi rek xam naa ne lépp du fi xaj. Hmm. waaye nga may ñi si tuuti rek incha allah si gàttal. <coughs> waaw Seydina Ousmane xam naa ni nga ko waxee noonu rek la li ci ne si njariñ yëpp. Hmm. émission bi attanu ko. Hmm. garab gii fa original la. garab gi danay dox ci wàllu néew góor goo xam ne néew kàttan da kaa sonal lool. Mm. ba tabaarakalaaw bu jëlee garab gi yàlla dana ko ci defal sutura. Mm-hmm. ak koo xam ne yàlla nattoon na ko ndoxam ni yow mi baaxut. Mm-hmm. maanaam mi ngi sëy di génnee man ni waaye man ni bi formé wut ni war a formé. Mm-hmm. buy utiliser garab gii rek fa tabaarakalaaw yàlla dana ko ci defal li nga xam ne moo nekk sutura. ak koo xam ne dafa yore wàllu jabet. ak ku yore wàllu tension. ak ku yore wàllu hémorroïde. li ci nekk daal boo ko jëfandikoo rek. dëgg-dëgg si ngay xamee li nga xam ne moo nekk njariñal garab gi nii hen kon fa tabaarakallaahu bi moom ci yooyu lay dox Seydina Ousmane. macha allah te amul benn effet secondaire. déedéet xanaa jigéen gu wéru daal. Mhm. moom la tere bu mu ko naan. Mhm. jigéen gu wéru rek moo ko mënta ñàkk waaye du xale du mag. Mhm. heure noo man di toll rek tabaarakallaahu mën ngaa utiliser garab gi yéen. macha allah waaw incha allahu rabbi. tabaarakallaahu ah boobu sëñ Maodo am na solo. waaw kon léegi maa ngi fi beneen biteel. waaw waaw bii moom tey dox ci wàllu yaram buy métti. waaw lu mel ni bu dee ndoxu siti mm-hmm. moo la téye mm-hmm. wala sa yaram bi di métti mm-hmm. fa tabaarakallaahu yax yeeg yaram bi di métti daal ay fatiguement général ak moom boo ko jëlee rek fa laaw léegi tey nga tàggoog moom macha si nekk si njëriñ yëpp kenn mënut kaa lim boo ko jëfandikoo rek danga xam dëgg-dëgg lim làmboot macha allah bi ci wàllu wér yaram lay dox te wér yaram nag mooy mooy lépp Seydina Ousmane wallaay ndeysaan jërëjëf ah kon jeex na wala des na. dafa des na bi nuurul Qur'an it ñëw na fi. Mhm. waaw moom lañ ko tuddee sax moo gën a neex muy leer ak alxuraan. Mm-hmm. bii ab frotté la. Mm-hmm. moom bu dee yaram bi day métti. Mm-hmm. bopp buy métti fu la mënti métti rek. soo ko jëlee diw ko si rek. fa tabaarakallaahu léegi tey nga tàggoo ak métit googu. macha allah ala kulli xaal waaw. est-ce que ah ko boobu de dara baax si sama yaram bi day métti. waaw boobu de boo ko laalee léegi tey nga tàggoog moom. tabaarakallaah. waaw bii moom fa tabaarakallaahu góor ñi nga xam ne dañuy yar karaw wala jigéen ñi nga xam ne dañoo bëgg karaw. karaw gu bëri lool. te te boole kaa rafet. waaw ah, bu dee karaw gi day dagg boo ko ci diwee du mhm. bu dee da ngaa yore ay crache bopp mhm. boo ko ci diw ya léegi tey nga tàggoog moom mhm. karaw gi dana màgg lool soqi rafet tabaarak laaw du daggati muy góor wala jigéen yëpp ala kuli halin mën nañ koo utiliser ah, Seydina ah, Ousmane moo tax xam naa dana la arrangé waaye man it de dana ma arrangé ndax moom xam naa sama bopp bi mënta ab karaw macha allah kon sëñ Modou mm. ah yi nga fi indi tey am na solo lool tabaarakallah mm-hmm. Euh, lii nag moom bokk na si li nga xam ne dafay dimbale émission bi ñu ngi woo yeneen mbokk yi nga xam ne ñoom it am nañ seen seeni marchandise te bëgg mu dem mm. dañ ñëw fii si émission bi si rajo Mounir mm. bu ñëwee rek ñu jàllale leen ko comme ni ñu ko defalee Cheikh Cheikh Ousmane Touré mm. ah tabarakallah kon mbokk yi mi ngi noonu képp koo xam ne yaa ngi bëgg a dimbale daara ji ak si rajo euh, émission bi si rajo Mounir bii ah nga ñëw rek tabarakallah jënd si euh, produit yi nga xam ne teg nañ ko fii si table bi wala it ku am marchandise te bëgg mu jarit nga ñëw incha allah ñu defal la ko comme nii. buñ ko testé ba xam ne wér. Mhm. waaw mu soog jàll. mu soog a jàll incha allah. parce que yii moo tax doo dugal. dëgg la incha allah ah, waaw waaw allah. kon daal bu ko defee rek xam naa ah, dañuy daal di eh, dem ci kii rek mu daal di indi publicité bi. Hmm. bu ko defee ñu dellusiwaat ak yéen incha allah si lu wàllu laaj ak tontu yi. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi taala wa barakaatu mbokki jullit yi sen mbokk sen xarit docteur Cheikh Ousmane Touré dellusiwaat na fi ci ndakaaru indi len ay garab yu muccu ayib kep ko xamanteni da nga yor jangoro yi nga xamanteni mom lay bëgg lim dawal nga seti docteur Cheikh Ousmane Touré indi na ci ay garab yo xamanteni garab original la muccu ayib kep ko ko insya insha allah da nga daal di janggoro mbooleem jàngoro boo xamante ni nekkoon na sa yaram hémorroïde bu fekke dang ko yor demal nga seti ko bu ne da nga yor bolotma combat dawal dem si gaaw bul ko wàcce néew kàttan nag amu ca moroom képp kum ci jàppantet ba jox la ay garabam nga jëfandikoo ko incha allah kàttan force ngay yor euh, gaaw a daanu nag moo ca man képp koo xamante ni da ngay gaaw a daanu demal nga seeti ko bu joxee garabam ba nga jëfandikoo ko mën ngaa dox lu mat ci juróom euh, juróom benn fukki minute ci yoon wi doo doo àgg suuf euh, koo xamante ni dafa yor feebar pratiquement général demal nga seeti docteur Cheikh Ousmane Touré ulcère moo lii nga xamante ni moom la ñuy wax tension képp koo xamante ni tension dafa yéeg wala mu wàcc demal nga seeti docteur Cheikh Ousmane Touré moom daal am na ci garab goo xamante ni bu la ko joxee rek nga daal di tàggoog loolu nga xamante ni mooy sa jàngoro ndoxum siti nag moo ca man siti bu feeñ bi ak bu nëbb bi jabet amut ci moroom képp koo xamante ni dangaa yor hémorroïde bi nëbb bi feeñ yépp demal nga seeti ko mbooleem jafe-jafe yaram yi boo ci am rek demal jàkkaarloog docteur Cheikh Ousmane am na ay garab yoo xamante ni bu la ko joxee ba nga jëfandikoo ko incha allah da nga daal di tàggoog mbooleem jàngoro yooyu waaye la gën a doy waar te gën a neexati ñëwagut muy jaaro bi nga xamante ni moo lëmbi àddina tasaare réew mi képp koo xamante ni dangaa bëgg ci jaaro yi wo wal docteur Cheikh Ousmane Touré docteur Ousmane Touré nag numéro téléphone am la 75 da ngay def 255 50 25 255 cinquante vingt cinq jaaro yi nag day dox ci muslaay day dox ci wërsëg day dox ci képp koo xamante ni da ngaa yor eh, loxo bu bënn maanaam loo yor sa loxo du toog demal nga seeti ko bu dee bayre it daa jaaro bi da cay dox day dox ci ubbeeku mboolem képp koo xamante ni soxla nga ko rek woo ko ci numéro de téléphone boobu incha allah da ko daal di. di jot suñu vidéo nag foo leen toll ci biir réew mi wala bitim réew da ngeen di abonné fii ci Farokh TV. ngi mën a jot mbooleem vidéo boo xam ne dina nañu ko ngir mën a xam mbooleem loo xam ne dina xew fii ci biir réew mi wala biti réew waaw alhamdulilah kon publicité bi mi ngi noonu ku bëgg si garab yi rek boo wootee si numéro boobu si écran bi bagu allah la si jox li nga bëgg moo xam euh, par benn nga bëgg wala par 10 wala par lo bëgg rek incha allah danañ la ko jox bu soob yàlla kon bu ko defee rek sëñ Modou xam naa ñu dugg ci émission bi ci laaj yi ndax bëri na fi ay laaj yoo xam ne rotani na fi ñu xaj-xajal li nga xam ne xaj na si rek incha allah comme affaire bi moom taala bu ko defee mbokk mi dafay laaj nee na hal yajuuzu nikaahu imraatin lil awraax mu ne ndax dagan na nga takk soxna soo xam ne danga nga koo takk ngir wut ay këyit xam naa mbokki modu modi yi nekk biti réew nyom ñoom lay faral di dal ndax da ngay dem si réewum jambur bëgg fa këyit euh, nga bëgg fa këyit mu jafe la mu leer na la yow maanaam buntu bi nga mën a amee këyit fekk nga jigéen joo doomu la yow nga ngir bëgg am këyit bu ko defee euh, ki loolu la doon laajte ndax loolu dana dagan si seydna usmaan rabbana aftax baynana wa bayna qawmina bilxaq wa anta xeyril faatixiin mbokk mi tabaarakallaahu laaj boobu laaj na ko waaye laajal na ko ay modi modi yu bari waala kulli xaalin kii dafa nekk réew ma bëgg na ay këyit mu xam ne bu takku doomi réew moom a këyit du ko yomb mu takk ko rek ngir këyit yomb ko muy laaj ndax loolu dagan na wala daganut waaw dañ kaa tuddee takk rek waaye ni ko takk loola mooy tax dana dagan ndax sart yay tax sëy sëy di xam ak sëy di wér benn sa palimi dafa waa man mi ñëw naan jabar laa ko bëgg yéene xuma ko takk moom mi naan nangu naa it yéene xut nekk sama jabar kon yéene baa njëkk a yàqu kon daal loola dañ koo def benn benn stratégie pour këyit yiñ bëgg ci réew ma yombuñu loola kese la waaye nekkul sëy xaqiqatan kon moo tax loola su boobaa dara nekkul si loola mbir loo xam ne tabaarakallaahu shariatu daf koy daal di daganal Seydina Ousmane naka noonu bu fekkoon jigéen moo fa bëgg kayit dem gis fa góor gu dëkk foofa mu ne ko léegi dañuy dem nga présenté wu ne yow yaa nekk sama jëkkër su paree ma fay temps kayit yi ma bëgg yomb ma su boobaa loola it dagan na kon bu ko góor defee baax na bu ko jigéen defee it tabaarakallaahu baax na loola dara nekku sa wallaahu taala axlamu Seydina Ousmane fa tabarakallahu masha allah euh, ahsanta wa ablahta barakallahu fiik kon bu ko defee rek dañuy toxalu ci beneen laaj bi ba tey mbokk mi dafay laaj nee na ndax dana dagan sëyëb boo xam ne sëyëb délai la maanaam sëy boo xam ne dañ koo takk maanaam mu nekk contrat mu nekk loo xam ne dafay jeex ñu àpp ni heure bu jotee maanaam dafay jeex ndax sëy boobu dana daggan ci sariya naftax naa wa bayna qawmina bil xaqi wa anta xeyril fatihin mbokk mi làcce boobu mu làcce moom la ñuy tuddee ci arab nikaaxul mutaat yi muy sëyëb yóbbul di sëyëb contrat danga nekk réew ma gis fa jigéen bëggu koo takk moo li la nangu naa laa sëyal de waaye duma dem senegal soo ma nee daal nga takk ma diir bi ngay nekk ci réew mi tabaarakallaa ma continuer di nekk sa jabar waaye kër boo buubee say bagaas yi dem sëy bi day jeex tabaarakallaa mën naa nekk beneen biti réew waaye mën naa nekkit fii ci réewi taax yi di Dakar ak yu ko mel jóge naa xàll ba ñëw fii gis fi jigéen bëgg ko mooy laa ba ñu ma la de waaye duma dem Saalum soo mënee daal nga takk ma ker boo demee ba dara desul di ñibbi Saalum toog fa su boobaa sama sëy ak yow dafay daal di jeex ma nangu ko sëy boobu dafa xaram dëgg la nag njëxal benn lislaam amoon na mooy commencement wu lislaam dibi lislaam amoon na waaye ñenn ñi dañ ñaa fatxu makkata su la ko yonent bi sallallahu alayhi wa tere ne sëy bi ñuy tuddee sëy contrat bu ko kenn defati lekk yàpp mbaam it muy mbaam sa fii di ne ci kër gi su la ko yonent bi sallallahu alayhi wa tere ba addis bu gàtt ñëw ci ne laa mutaata fil islaam maanaam nikaaxul mutaati amut ci diinal islaam kon su fekkente ne ci ngiram imaamu Malik nga bokk te ñu ëpp moom lañ siifur moom lañ jàng sëy boobu daal Seydina Ousmane tabaarakallaahu wirut kon sëy boo koy takk doo ko wutal xàpp dañ koy bay ci loxo yàlla rek heure bu ko jeexalee ñu xam ne jeex na waaye ma waxtaan ak yow ne la bu ñu xeggee fii bi jeex nga ne ma waaw dëgg-dëgg su boobaa kon sëy boobu wéru Seydina Ousmane wallaahu a'lam macha allah fa tabarakallahu ahsanal xaalixiin sëñ Maodo leer na jotal na yàlla na yàlla fay la yiw yaakaar naa mbokk mi bëggoon ak leeral bu ko dégloo dana ci am lu ko leer kon bu ko defee rek dañuy toxalu si suñu ñetteelu laaj ba tey rek mbokk mi dafay laaj mu ne ndax dana dagan ci sariya maanaam jigéenu jullit koo xam ne du jullit ñëw takk ko ndax loolu dana dagan ba tey it safaan ba maanaam euh, góoru jullit ndax dana mën a takk jigéen boo xam ne nekkul jullit loolu daal la doon laaj ndax jigéen bu dul jullit jigéenu jullit ndax góor bu dul jullit dana ko mën a takk wala góoru jullit it mën naa takk jigéen bu dul jullit loolu la a leer ndax سيدنا عثمان ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين واو غور جيغا خامني ام مسيل مال دي اب جوليت مانا تاك جيجين اك اهل الكتاب اهل الكتاب بنكو واخا موي خيت ويغا خامني يال دالينا جوخ تيري موي يهود اك نصران man man naa takk jigéen boo xam ne catholique la bu ko neexee bu dimaal jotee mu dem seen église man ma dem jàkka ja bu ñu xamee ay doom tabaarakallaa ju nekk ay julli loola dara nekku sa waaw ah, naka noonu waaw ah, ah, noonu bu fekkente nii dafa nekk koo xamante ni nekkul jullit ala kulli xaalin moom it mënul takk jigéenu jullit kon daal yow góor gi nga xam ne fa tabaarakallaahu da nekk jullit man ngaa takk jigéen ak yahud wala boog jigéen ab nasaraan waaw su fekkente nii nag koo xam ne am majuus la muy am musrik jaamukatu jaamukatu xërëm la mooy ñi jaamu ay xeer ak ñi jaamu yeneen yi wala ñi nga xam ne sax ñoom gëmuñ ne yàlla am na bu dee ñooñu la moom daganuñ ci daganuñ ab jullit mu takk ko waaye nag ki nga xam ne nag moo ab jullit la nekk ak jigéen kooku moom ku dul mënu koo takk. kon tay yow mi di deglu bul gis ko xamne du julit ab la du julit bari na alarek rek mu ñew bëgg sa dom ju jigen ji nga ne may nga ko su boobaa loolu musiba mu reey reey la ci njaalo lañ nek ñom ñaar ba kérok ñuy dee kon lola ki julit man ta tak jigenu julit waye ki nga xamne julit la mom mën naa takk ku du julit ku du julit nak moy mu nek yahud wala nasran so waye nak ñi nga xamne ay jaamu ko to lañ wala ñi gëmu ne yalla xam nañ ñoo ñoom su boba fa tabaarakallaahu mëno ci tak yow mi nga xam ne ab julin nga Seydina Ousmane eh, ahsanta wa ablahta barakallah fik, jasakala anna khair yalla yalla fay la yiw eh, leer na jot na yaakar na mbokk yi doon leerlu bu ñu dégloo danañ am lu leen leer fi laaju yi nga xam jot nañ ko fay rotal tabarakallah xamna dañ yem ak yeen fofu rek ci émission bi incha allah ndax waxtu yu moo ñu xoj suñu caméraman bi ngi ñuy signal ne li ñu amoon si waxtu jeex na kon xam naa dañ lay bàyyi rek nga tàggatoo sëñ Modou loo doon tàggatoo. waaw Seydina Ousmane xanaa di wax ne lu ci leer ci yàlla la. Mm-hmm. lu ci dëng gàtt xam-xam la ak fasaadi xam ne tabaarakallaahu laay biire mbokk yi ak leeral li nga xamutoon mm-hmm. tabaarakallaahu loolu moo taxoon moo tax émission bi jóg. Mm-hmm. kon bu fekkente ne ni liñ dégg dëppoo naa xam-xam ñu santee ko yàlla bu dëppoo wutoo xam-xam it tabaarakallaahu ñu gindi ñu ci te xam ne jaam yu xeebu ñu doon di leen jox rendez ba beneen yoon incha allahu rabbi asalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullah kon mbokk yi Assalamualaikum warahmatullahi taala wa barakaatu mbokki julit yi sen mbokk sen xarit docteur Cheikh Ousmane Touré wat na fi ci ndakaaru indi len ay garab yu mucc ayib kep ko xamanteni da nga yor jangoro yi nga xamanteni mom lay bëgg lim dawal nga seti docteur Cheikh Ousmane Touré indi na ci ay garab yo xamanteni garab original la mucc ayib kep ko ko jëfandikoo insha allah da nga daldi taggo mbollem jangoro bo xamanteni nekkon nacc sa yaram hémorroïde bu fekke dang ko yor demal nga seti ko bu ne da nga yor baax dawal dem si gaaw bul ko wàcce néew kàttan nag amu ca moroom képp kum ci jàppantet ba jox la ay garabam nga jëfandikoo ko incha allah kàttan force ngay yor euh, gaaw a daanu nag moo ca man képp koo xamante ni da ngay gaaw a daanu demal nga seeti ko bu joxee garabam ba nga jëfandikoo ko mën ngaa dox lu mat ci juróom euh, juróom benn fukki minute ci yoon wi doo doo àgg suuf euh, koo xamante ni dafa yor feebar pratiquement général demal nga seeti docteur Cheikh Ousmane Touré la li nga xamante ni moom la ñuy wax tension képp koo xamante ni tension dafa yéeg wala mu wàcc demal nga seeti docteur Cheikh Ousmane Touré moom daal am na ci garab goo xamante ni bu la ko joxee rek nga daal di tàggoog loolu nga xamante ni mooy sa jàngoro. ndoxum siti nag moo ca man siti bu feeñ bi ak bu nëbb bi jabet amut ci moroom képp koo xamante ni dangaa yor hémorroïde bi nëbb bi feeñ yépp demal nga seeti ko mbooleem jafe-jafe yaram yi boo ci am rek demal jàkkaarlook docteur Cheikh Ousmane Touré am na ay garab yoo xamante ni bu la ko jëfee ba nga jëfandikoo ko incha allah da nga daldi tàggoog mbooleem jàngoro yooyu waaye la gën a doy waar te gën a neexati ñëwagut muy jaaro bi nga xamante ni moo lëmbi àddina tasaare réew mi képp koo xamante ni dangaa bëgg ci jaaro yi wo wàllu docteur Cheikh Ousmane Touré docteur Ousmane Touré nag numéro téléphone am la 75 da ngay def 255 50 25 255. cinquante vingt cinq jaaro yi nag day dox ci muslaay day dox ci wërsëg day dox ci képp koo xamante ni da ngaa yor eh, loxo bu bënn maanaam loo yor si sa loxo du toog demal nga seeti ko bu dee bayre it daa jaaro bi da cay dox day dox ci ubbeeku mboolem képp koo xamante ni soxla nga ko rek woo ko ci numéro de téléphone boobu. ngir ngeen di jot suñu vidéo nag foo leen tollu ci biir réew mi wala bitim réew da ngeen di abonné fii ci Farokh TV. ngir mën a jot mbooleem vidéo boo xam ne dinañu ko ngir mën a xam mbooleem loo xam ne dina xew fii ci biir réew mi wala biti ilallahi wahdahu yanaalul maqaamala raja